chers internet yu enquête jàmm dalate jàmm ci li gën a fës yi ñu tàmbale koog les éco mu del suwaat ci suuxuk batalo Joola gi nga xamante ni nii ni ki ren lay tombeeg ñaar fukki atu yàlla gannaaw ba batalo Joola suuxee si géej gi yéenekaay bi del suwaat ci naqar gi nga xamante ni nii famille victime yi moom la nekkee kenn ci jirim yi di wuyoo ci turu Catherine Gomis moom mi nga xam ne ci biir yéenekaay bi ne bëgguma Bernard Diatta moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ak luñ ci mënti wax tam chaque jour ñu ngi gën dund batalo joola Le Soleil mel na lu koy dëggal na naqar gi de dañ koy dund à vie ñaar fukki atu yàllaa ngi nii suuxoog batalo joola ba léegi ci dossier yi benn leeru ci yéenekaay bi ne en jamono ji boo demee ci cimetière yi nga xamante ni moom la jagloon ñi siwxoon ci batalo joola wallaay da ngay jooy ci jamono boobu Mamadou Saliou Diallo moom wàllu politique yéenekaay bi dellusiwaat ci sorti Mimi bi nga xamante ne nii def na ko niki démb waaye tàng na jër Mimi Touré ci lan moo waral divorce ak Macky def ay révélation yu bëri tey xamle ne en tout cas ponk bi ci gën a wér te gën a wóor moo di coowal troisième mandat bi nga xamante ni moralement et juridiquement teguwul ci yoon te sax sénégalais nag dañ koo bëggul yéenekaay bi dañu xamante ne jamono ji nag Mimi Touré amatul jàmm ndax waa benn bokk wax ñoo ngi koy jaabaa joome di yàq ay jigéenam ñoo ngi xamal Mimi Touré mii ne ko sa tànk ca diwaanu Kaolack bëxët bu yaat ci démission bi nga xamante ni Mimi def na ko ci groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar yéenekaay bi di xam ne ne Mimi de dafa mer ba futti ci foqati gi ñu foqati président su nationale bii ci ay loxoom moom Mimi di nettali mbir yi nam fa demee ne ñëw naa ba toog ci biir assemblée nationale pourtant man li ma jàppoon moo di man maay candidat wu benn bokk yaakaar ndax président Macky ci boppam laa la wax moomu ko di sàkku nag ci Mimi ci na mu gën a gaawee mu joxe mandat wu bi nga xamante ni Bokk Yaakaar ñoo ko ko jox moom Mimi di xam ne ci biir yéenekaay bi ne nit ki démb tey jii dinaa dem ci assemblée nationale jàkkaarloog président bi xamal ko ne ko bis ni ki tey nag maa ngi nekk ci non inscrit yi génn naa ci benn bokk yaakaar ba mu seet wecci Mimi Touré dellusiwaat ci biir yéenekaay bi lan moo tax mu daal génn ci groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar ne leen kese ko waral moo di Macky Sall daf wor ndax tànneef bii mu def ci bopp assemblée nationale nekkutoon loolu la ma waxoon bi ñuy tànn avant ñu jëm sax ci liste législative yi daf ma na woo bi ma ne ko waaw ba ma woowee lenn kese la ma wax xool naa ba xool waaye nag damay changer sama tànneef du yow laay tànn ci bopp assemblée nationale bii moom Mimi Touré kàddu yi na kàddu wor ba tax na mu daal gedd génn assemblée nationale bi Mimi di xam ne ci biir yéenekaay bi ne tax ñu foqati cër bii gi man du leen lu dul sama posture ci troisième mandat bi nga xamante ne nii xel sax da koo xalaatul ci Sénégal gii gannaaw fukki atu yàlla ne àdduna du neex mukk nag ba ma accepté troisième mandat bii ndax bu ñuy xool ci suñu ginnaaw fukki at yi ñu génn coowal troisième mandat bii nag moo taxoon Sénégal nar a tàkk kon nag du toog ba tey jii di ko accepté ndax man mii bokkoon naa ci ñu ko doon xeex mi mi di conseiller président Macky Sall ci biir yéenekaay bi te koy xamal ni yow en tant que président Union africaine dangaa war a joxe de bon exemple waaye waroo xëtt charte mi bëgg parlementaire dugg ci non inscrit yii nag dafay mujjee indi beneen configuration ca biir assemblée yéenekaay bi ñu xamal ne Macky Sall de saa yu ñu xëyee rek muy gën néew doole ca biir assemblée lii nag moo merloo kàngamu benn bokk yaakaar yi ba fi mu nii nag ñu ngi artu Mimi Touré ca diwaanu Kaolack moom dañ ko faa aaye dugg fa ñoom jigéenu benn bokk yaakaar yi ca diwaanu Saalum di xamal Mimi Touré ne ko sa tànk laa la wax bëggatuñ ko gis ci biir daal di dumóoyu président Macky gannaaw ba ñu seetloo ne lijjantiwu ko sax ci gouvernement bu bees bii direct news moom def taxaw seetlu ci gouvernement bu bees bi nga xamante ne Amadou Ba ni mu tàmbalee liggéeyam dara baaxu ci maanaam faux départ bu rëy la def moom Amadou Ba jénikaay bi def ci révélation bu rëy te ñu xamal ne gis nga gannaaw ba ministre yëpp defee seen maintenant Amadou Ba dong nag moo taxawalagul ba léegi si ni kabineem gannaaw Ba a ñu digoon journée bi nga xamante ni moom Amadou Ba njiitu gouvernement bii moo waroon a jiite rencontre patronat bi Macky Sall daf teg ne tegee dem jiite rencontre bi te ba léegi si sax Amadou Ba yëgul lu xew lii di firnde na Amadou Ba jamono ji ba léegi ci ay jafe-jafe la nekk ndax même ci passation de service yi nga xamante ni ministre yi ñoo ngi koy def amul kenn ku ciy tudd turam mel am na fierté liggéey ak moom yéenekaay bi di laajte nag jafe-jafe gi nga xamante maanaam genre premier ministre marionnette lañ ko jàppee ndax rencontre patronat bi dèjà Macky Sall daf ko wan jikkoom beddi ko tegee ko nële daal ne gis nga génnub bi ne kenn mënumaa génn nag ca biir assemblée nationale fa laay des di nekk député du peuple bokk nag ci groupe non inscrit yi Mimi Touré di xamle ci biir yéen bi ne gis nga sama diggante président Macky li ko ñagasal bokk nag sama posture ci troisième mandat bi nga xamante ni d'accorduma ci d'accord mu ci ëllëg ku koy tontu ci biir yéenekaay bi te koy xamal ni troisième candidature président Macky Sall lu mën a nekk la mooy nekk suñu candidat journal Le Réveil ubbi xët bu yaatu ci remaniement bi nga xamante ni ci bi dañoo léegi si ñu ngi am ay jafe-jafe ngir doxal te ñu ngi séntu sax nag ab benn sénégalais libanais ci biir gouvernement bi du kenn ku dul Saleh mi nga xamante ni nii ñoo ngi sentir présence ci yéenekaay bi ne après Aminata Tall Lansana Charles Émile Ciss Moussa Diop Moustapha ba ci Mankeur Ndiaye jamono ji nag Mimi moo dummóoyu président Macky Sall pourtant booy xool moom Mimi Touré bu dul teranga jinne rek président Macky defal na ko ko gannaaw ba mu fi nekkee ministre de la justice nekk fi premier ministre jóge ci loolu nekk président conseil économique social et environnemental président Macky defaat ko tête de liste Benno psychologue moom dañ ko aaye mu dugg fa la libération yéenekaay moom ubbi xët bu yaate ci coow li nga xamante ni moo dar activiste bii di Kaliphone yéenekaay bi ne gannaaw xale bu jigéen bi koy tuumaal ne def koo sàkku moom itam daf koo tëddee yéenekaay bi def révélation yu bëri ci enquête bi nga xamante ni fi mu nii certificat médicalu xale bu jigéen bi nga xamante ci turu mu ngi wuyoo ci turu Adja Thiaré Diaw dëggal na ne Kaliphone mii amal na ay violence ci xale xale bu jigéen bi dem ba xotti sax njiit laayam ngir bëgg koo sàkku niki tey ji nag la Kaliphone fas yéene jàkkaarloo xale bu jigéen bi lépp ñeel dossier bi nga xamante ni fim mu toll nii na mu ngi koy dugal ci guuta day yàlla yàlla daal kenn la yàlla baax na nañ yàlla musal ci siw ñu yéen nag jàmm ba suba ak jàmm incha allah